Bonjour c'est qui ça. déglu laan jàmm la. ma ne ko doon laajte rama si de ngi Zale est de moom da nga jékki-jékki rek raar. naa seeni bët mais nag raaruma samay réaction yow looy wax ni. ndaxte tepp tepp moo gën yuréet. dëgg du romb nopp. te sax ceeb balaa moo gën a neex nooy ci bëñ koy sàqami mais paa nga koy warax. <laughs> waxtaan bi nag tey jërul sax muy gudd. légal légal légal légal ndaxte nag tey damaa yow sama yaram bi diis lool rajo yi di jooy télé yi nag boo ci jàpp ñoom ñoo nuroo même édition même titrage même chose même débat dama yeewu suba teel dégg affaire bi waa tataan dee la maa mi lu mu dégg ban genre musiba mbaa jàmm la rek information bi moo yee ñëpp moo yëkkati ñëpp ci lal wàcc leen mais ban information tamit la mooy joxe moo ñu joxoon coon gaawe leen ma yàlla moo ko jëlaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun information tey bi de moom néexul yàlla rek rek rek moom rek de moo sañ li moom mi ñu bind te saa yu ko neexee mu fànn ñu te kenn mënu xëccoog moom mais nag ku baax papa ju Sénégal yépp bëggoon ku bind ngir réew mi moo dem moo tax it dama ko daan dégg ci ay biiri waxam mu naan man am na soixante-quatre ans la di dugg soixante cinquième année mm-hmm. kon man la yonent yàlla Muhammad dundoon sallallahu alayhi wa sallam ko ba romb ko mm-hmm. âge jullit mm-hmm. boo dee nit jàppal ko ne mooy soixante trois ans parce que yonent bi mooy suñu lépp te moo tax ñu bind ñu boo ko rombee nag bonus la xam nga ne kii yàgg naa sóoraale bis bi papa conde bu ñu waxoon ne ku dut sóoraale bis bi yow yaa njëkk dem kon gëm naa ni dina toog mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam comme ni mu ko waxee woon aduna du dara ñu ngi koy masaw waa këram di ko masaw sénégal gépp parce que sénégal gépp ñàkk vraiment am nañu tey euh, yeewu bu metti metti metti metti metti metti yàlla dee di nof rek lañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjana bu ko defee suñu maam mën naa def ñaan amiin